ñoo ngi nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñoo nuy déglu fii nu toll ak fuñ mën a nekk ak ñu nu xam seet a déglu di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq te defal leen ko ñu fas yéene dellusiwaat ànd ak yéen ci jotaay biñ baaxoo ci ngoonu àllarba bu nekk kon bis nekk tey war a toll ci eh, ñaar fukki fan ci weeru safar atum junne ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent wala tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ci deux mille huit di ñaan sun borom tabaraka wa mu defal ni tawfiq laaj yi fi jot a ñëw mooy yi jóge ci suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci xam sa diine eh, dafa doon lim boo xam ne jàpp naa ne dana doy xam naa moo tax euh, Safir euh, doy loo loolu ba ci semaine bi ñëw insha allah ñu door a jël yeneen laaj ñu tàmbalee ci laaj bi njëkk bi boroom dafay laaj mu ne ndax jullit ajjuma ni mu doone farata ci góor noonu la doone farata ci jigéen ñu di ko xamal ne Eh, julli ajjuma ci góor la nekk farata waaye nekkul farata ci jigéen soxna ci xadiisu Taariq ibnu Shihaab boo xam ne Abu Daawud moo ko génne ak xaakim Cheikh Nasiruddin al Albani it wéral na ko mu wax ne aljumuatu xaqun waajibun ala kulli muslimin fi jamaa illa arbaa abdul mamluk aw imraatun aw sabiyun aw marid ajjuma daal farata la ci kum mën a doon ñu julli ko ci mbooloo doon des ñeent ab jaam boo xam ne dañ koo moom kon waxuñu rek jaam boo xam ne jaamu aada la kon jaam jaam yi ñuy wax léeg-léeg ñu ne diw diwa di jaamam moo xam ci wàllu askan comme doomi doomi bàjjan wala jaam yi nga xam ne eh, ci cosaan la amoon ñii di ko ay jaam ba tey te fekk doonuñu ay jaam kon loolu taxut ñuy wax waaye jaam buñ moom la wax abdu look jaam boo xam ne dañ koo moom wala jigéen kooku it ajjuma warut ci moom walla gone mooy ku matagul mukallaf majooragul wala ku feebar kon ñooñu ajjuma waru leen buñ ne warul nag li muy firi mooy nekkul obligation ci moom waaye nag su ko defee itam def na lu baax su fekkee ne am na euh, jàpp ndalu mën naa dem julli ji àjjuma moom jigéen ji te fitna amu fa juñ ko mën a fitnaal wala fitna moom jum mën a fitnaale keneen kooka moom lu baax la mu dem julli ji àjjuma déglu xutba ba julli ànd ak jullit yi loola dara nekku ci nekk noonu jaam bi nekk noonu gone gi nekk noonu ku feebar keet bu fekkee mën naa soox ba dem julli ji su boobaa dara du ca nekk waaye nag buñ ne dafa war moom mooy loo xam ne bu ko deful rek day daal di am bàkkaar kon julli àjjuma demewul noonu moom ci koo xam ne euh, jigéen la wallahu alam laaj bi ci tegu yu nuroog moom euh, daana fi jaar dafay laaj diggante fajar ak suba lan moo fi dox ci waxtu leeral nañ mbokk yi ba tàyyi ne fajar su jotee mooy firi ne waxtu julli suba jot na waaye nit ki balaa julli suba bi fajar si xaree ñu noddu noddu asalaatu xayrun min annawm dafay daal di julli ñaari rakkay fajaram ndax fekk na naafila na la muy naafila ba wittar bi fajar saataan jot su xasee def loolu la ci tegu mooy julli suba <coughs> kon diggante bi ab diggante bu soree nekku fi fot na rek xama ne loolu mooy waxtu julli suba waaye ñaari rakkaay fajar lay jiital su noppee door julli suba kon loolu mooy waxtoom waaye diggante bi amul waxtu bu soree boo xam ne dañ naan lii mooy waxtu fajar bu jàllee lii mooy waxtu suba laaj bi ci tegu muy bu ñetteel bi kii def ne dafa dégg na yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu wax yu daan wàcc ci moom dafay dafay ñàkk ak yëg maanaam conseillance am dafay dem maanaam nekk fàqidul wax yi comme ni ñu ko mën a waxee mu ne su fekkee loolu nag noonu la kon nan lay mokkalaate li nga xam ne wàcce nañ ko ci moom ba su xelam delsee rek mu daal di koy mën a xamaat alhamdulilah pour tontu loolu ñu koy xamal ne ko loolee mu dégg wérut maanaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam daawul tàggoo ak sagoom su fekkee ne wax yi day wàcc ci moom alxuraan bi su dee wàcce su leneen di wàcc ci moom jógee ci boroomam dëgg la lu diis gann la ba Aïcha radiallahu taala anha mi wax ne yonente bi alayhi daana teg boppam ci tenkam su alxuraan ji di wàcc mu yëg <coughs> ni muy diise ci moom ba nee na léeg-léeg sax daanañ nekk ci jamono joo xam sedd bu metti la waaye du tee mbir mi ni mu ci moom day tax euh, ñaq bi day wàcc day wàcc ci kawam ak lu sedd bu metti metti kon ñu ne li ko borom bi tabaraka wa taala da ko woon inna sa nulqi alayka qawlan thaqila danañ wàcce ci yow wax joo xam ne lu diis la kon diisaayu alxuraan boobu wér na waaye nag tekkiwul ne alayhi salaatu wasalaam daf doon tàggoog sagoom déedéet maanaam li doon wàcc ci moom teewut ci sagos bu ma sëkk lay wàcc ci moom su <coughs> loola jàllee loolee nga xam ne dafay ànd ku ñàkk ànd ku diisaay su wéyee mu daal di mokkal li nga xam ne moom lañ wàcce woon ci moom ndax borom bi tabaraka wa taala moo ko wax ne ko sa nokk yow ko fa saa tansa dana nu biñ ko gisee jibril bi wàcc bu dara di wàcc ci moom muy gaawtu di ko di ko jàng di ko réviser di ko muraaja pour bañ koo fàtte boroom bi tabaraka wa taala ne ko laa tuxarrik bihi lisaanak li taajala bihi inna alayna jamaahu wa quraana da daan def ba alxuraan ji wàcc muy gaawtu di ko répété di ko mokkal balaa jibril la dem mu di ko fàtte borom bi tabaraka wa taala ne ko jarut nga ciy gaawtu di ci yàkkamti euh, nun ñi ko wàcce ci yow noo koy garde ba dara du ci sànku kon alquran noonu la bindoo borom bi tabaraka wa taala moo ko wàcceel boppam moo koy gardeel boppam inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun loolu la borom bi wax noo wàcce alquran noo koy wattul suñu bopp kon <coughs> di jàpp ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam da doon tàggoon sagoom ba mu yàgg sagoom di dellu si waat ngir ne alquran day wàcc loolu wérul te même su fekkoon ne loolu dafa wéroon it sax du tee borom bi tabaraka wa mooy garde ay waxam ca nam ko soobe maanaam ca nam ko soobe waaye am waaye loolu moom alhamdulilah na laaj bi ci tegu tey bu ñeenteel bi boroom daf ne eh, dafa dugg ci julli timis fekk ñi taaya taaya ju dugg na ci jullit timis nekk ci taayaam ju yi nga xam day bëgg a sëlmal kon dafa kàbbar rek moom daa di toog imaam sëlmal na nee na mu jóg di fay la ko dese maanaam di julli la ko dese maanaam nga ne ñetti rakkaay yi mu war a julli nee bi loolu amee imaam itam jóg di julli gee ndax da doon boole xëy na moom ñoom àndal dañuy boole gee ak ak timis mu ne moom nan nan la waroon a def maanaam euh, lan moo ko war foofu <coughs> foofu ñu ko yëgal ne ko maanaam dara dara waru ko fi lu dul day àggale ak jullee moom su jullee ba sëlmal julli timisam su fekkee ne daa bokk ci ñoo war a boole moom nga xam ne sañ naa boole jox nañ ko sa boobu ah mu jóg ànd ak imaam la ko defee mu defaat na mu defoon àndaat ak moom su imaam sëlmalee mu àggale jullit génn loolu rek moo ko war su fekkee bokkul ci ñi war a boole nag moom day julli jullit ci misam rek mu jeex mu dem yoonam kooku dara waru ko foofu ki ci tegu daf ne dafa déggoon ci Euh, duruus yi nga xam ne ñoo ajo woon ci sunan abi daawud ñu doon wax ci chia ak li leen tàqaleeg ahlu sunna mu ne wante daal dafa gis ne lu bare bare bari ci sénégalais yi daal ba léegi xamuñu daal différence bi ndox diggante chiit yi ak ñi nga xam ne ñooy sunnit yi mu ne daal dafa bëggoon ak leeral ci loolu ñu koy xamal ne amoon nag leeral gu jiitu woon loolu ci même jotaayu fatawaa yi waaye danañ dellusiwaat wax ne siit yi ak ahlu sunna li leen séparé lu ci bëree bëri ci pas-pas lay dell li tax seen àndandoo mënta nekk li feeg du dellu gannaaw ca la ñu nekk dafa am àndandoo gi day jafe am na nag yent yëf yoo xam ne ñoo gën a fés ci li leen tàqale ak ahlu sunna li ci jëkk mooy masala bi ñuy tudde masalatul imaama muy gëm gi ñu gëm ñoom ne imaam ji gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ali ibnu abi talib radiallahu taala anhu ba noppi jàpp ne ñi nekk ci diggante bi ñëpp ñi ko jiitu dañoo këf nguur gi ci moom di wax ci ñoom wax yoo xam ne wax yu ñaawa ñaawa ñaaw la kon masala boobu ci li tàqale ahlu sunna ak chia ci la bokk <coughs> ñaareel bi mooy seen taxawaay ci alxuraan waxoon naa ci jotaay ba weesu mais ak luñ mën a wax ndax am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy miim loolu léegi di wax ne weddi wuñu alxuraan bii fi nekk waaye ñoom ci boppam liñ gëm mooy alxuraan bii nu yor dafa mànk am na ay saar yu gudd yu wàccoon yoo xam ne day tagg Ali ibn Abi Talib di tagg ahlul bayt mu ne ñi nga xam ne ñoo jëkk jël nguur gi dañoo di saar yooyee ci alxuraan ji loolu ñu koy wax ci ñoom mooy ñi nga xam ne taraluñ ba ëpp waaye ña taral ci ñoom ba ëpp te boo lii may wax nii boo demee ci téere bi ñuy wax alkaafi ba kulay ni maanaam ca xaaj ba nga xam ne mooy wax ci wàllu àq yi dañu tudde ko usulul kaafi da nga fa fekk loolu may wax ay riwaaye yoo xam ne ñoom dañuy wax ne alxuraan jii ñu alxuraan ja làqu nga xam ne siid yi rek ñoo ko moom ñu tudde ko alxuraani fatima maanaam ëpp na jii ñu yor nangami yoon te wenn xaraf bu nekk ci alxuraan ji nekkul ca jooja mu ne waaye jooja dañ koy denc foofa ba ma mahdi ma ñuy séentu ca mu jub jamono génn su dikkee mooy indi alxuraan joojee kon dañoo gëm ne alxuraan ji yor ala kulli xaal lu manqué la loolu nag lu garaaw a la lu juyoo ak pas-pasu ahlu sunna jamaa lu juyoo ak alxuraan ci boppam sax ndax borom bi tabaraka wa taala ci boppam boo waxee ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun kon kenn du mën a xam nan la ab jullit di fase ne alxuraan bii nu yor dafa manqué ànd ak wattu googu ko suñu borom tabaraka wa taala wattu te jooju wax ni mu doyee dee sax jéggi na tayo al imam eh, ibn Hazm al andalus